mboolem murid yi déglu leen ma yaalaan ci biir Seex bu leen nelaween mboolem murid yi déglu leen déglu leen ci biir Seex bu leen nelaween li may nelaw nelaw du tee yeete li may gëlëm gëlëm du tee ma woote kuy nelaw nelaw lu ngir réer waaye bu defee yite dootul yàlla ku leen di fàtte yàlla ak dogal ya ak atta ya ak sañ-sañ ya ak mbugal ya kattan bu ànd ak bareem ca lay jëf loo gis mu xew mi ndeef manul sañul lëf dogal bu am day la kooki xew-xew ngir kun gisul war naa la ko ak sew sew te naa ngir kun gisul war naa la ko ak sew sew te yàlla doo ko gis ba xam la muy def la xaji xaji bur bi làq lay yof ka gën a xaji gën a gis na toom yaay ka gën a jege pey baay gën a gis tiisam yaa te yàlla kat xar balay musibaay ngir dara ko mbaate muy ku baal te yàlla kat xarit ba lay baal ngir dara jaal muy ku baal te yàlla kat xarit ba lay baal ngir dara jaal muy ku baal la yàlla jox xarit ba ci xaama te munu ko jëf na tu koy xayma te balaa laa wóolu ba jox la mbir nga muñanam ba aw ca tànki mbër yaa la nabluwaanakum li saabiriina xasibanaasu li kaasibiina moom la ñu waxoon yonent ya ak labdaal ya ak xuddu ya ak walli ya ak lawtaar waxaala xuddu lawli yaayil mbakiyu رضينا رضي عنه لا والمكاي وفي الحديث إن أحب لاح هم دعاء نقبة ابتلاو فحيث ما يسد بالاستباح وحيث ما يا الناس تفاو أهل البلاء ليس له ميزان وليس ينصرهم ديوان دقل الأخلاق ودلون ينن يا ak saxaaba ya ak waliya xajam ya tegul wax la la daloon yoneen ya ak saxaaba ya ak waliya xajam ya soo xalamee mbir ya ca baawan mbirum sëñ gaawaan woyof si baatin soo mbirum sëriñ gaawaan weef ci baatin sëriñ Musaa mbirum sëriñ gaawaan weef ci baatin seetal buram mën nga ñu na aaya baa sax yaa ko daa di wat ne koo baa te teewu koo sant di wax alhamdu moo tax ba yàlla naa ko ni malamdu seetal ma teen ñu boole ko gay ya yewu ci gaynde ya fàddi mar yaram wa muy ree ñu far ko jàngal saar ya rab yay waare yaxyaa na tomba dootu am ci Sénégal noon yaa ko jàpp xar jëmam ja yaari gaal muy bëgg a wax yebal jibriilu nu ko sune i dootu doon marsoolu soo xalamee maam sunu ibrahima bam laata am xalilan ak xalima noonu mi gën nañ ko muy bay feela ba yàlla rendloo ko ismaila ñu dellu ko taalal mbëndung nam ruusa def ko ca biir yàlla saral salam sa seetal ma yéen bañu naa Yankooba seetal ma yéen bañu naa Yankooba gumba na ay at di polam cunne baa dadaa simbooy rangooñ dadaa simbooy rangooñ gannaawu yuusufa sanko ufum jekke si xoo yaa soo xalamee yuusufa ak mbokkam yaa dootoo dellu xalam soomba dellu xalam soomba ak tuumaam yaa dootoo ragal ku dil ilaayi naasi doo yoxee xeeti ngir pexem xanaasi na tub julit da yokk ay maqaama mbaa muy sippi ñaaw te bi si xiyaama na tub julit da yokk ay maqaama mbaa muy sippi ñaaw te bi si xiyaama na tub julit da yokk ay maqaama mbaa muy sippi ñaaw te bi si xiyaama na toodi kerkeraanu lawliyaay ku weddi laajal xeyrul anbiyaay mus nañ ko génne Muhammad Rasulullah mus nañ koo génne mu dem ba najaraan ñu di ko sànni doj naa day jabaraan noon yaa ko génne Makka ngir bañ diine bis ni rabi la dem Madina fanaan na ci mu xunti fanaan ci ay doj ànd ak Ababakar lu nekk ñuy daj fab nañ ko tabal ko ci biiru sarwaan jox nañ ko tooke teew ko day kiimaan keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak falaxi mocce ko xayru naasi bisub keroog la yàlla daali kéefër yëkkati lislaam loolu doy na tiitar la yàlla daali kéefër yëkkati lislaam loolu doy na tiitar bu yàlla daane kéefër yëkkati lislaam loolu doy na tiitar loolu doy na tiitar yëkkati lislaam loolu doy na tiitar yëkkati lislaam loolu doy na tiitar yëkkati lislaam loolu doy na tiitar yëkkati lislaam loolu doy na tiitar duniyaa xanaa du moo di sijil mu'miniin wa jannatul kaafir ñii ñaar duñ mane dogal bu am yàllaa ko def te xam na di ay di yiw soo gërëmul gërëm na seetal saxaaba ya gannaaw yonen ba wëree fu ko wax ku xamul baatin ba am na ci mbir yoo xam ni làmmiñ du ko laal am na ci mbir yoo xam ni def na ko misaal foo jabal imsaaku amaas yara waaye naa la fi musal fee dara na ku xamul arab na ku xamul yaaram mu dalli ko waar ku xamul yaaram mu dalli ko waar ku mën arab na seeti nuurul absaar gannaaw rasuulullaay gannaaw rasuulullaay gannaaw rasuulullaay gannaaw rasuulullaay ak sidiixu lañ rendi Ousmane man mu suñu ay ak siddiixu lañ rendi Ousmane dellu jëm faaroox lañ rendi Ousmane dellu jëm faaroox rey nañ ko tuumaal nañ ko jàpp marwaan ma sooki mbir ya déglu leen yéen gaawaan ma sooki mbir ya déglu leen yéen gaawaan gaw kër ga arbe na wutis na tan li doy na war ma kenn musula gis nañ raya Abdoulaye dañ koo talab dog bopp ba wóor na laay yow mal jamal toj nañu bëtub càmmooñ ba bis ba ca des toj bëtum nday joor ba muhammadum ababakar siddiixu rayin wa jar na waaju nekk yooxu ray nañ ko wat ko sanni cib santaare taxan jafal boole ko ximaar xon liyu ay dara ma doon jambaar ja abul Seynu wal Xasan yaakaar jaa bañam ya rey nañ ko jëreewi ngir weddi yàlla gaa ñu rab ko foofa fu muy julee fajar la ibnu maljam fa jaas ñu bett ko dal koy jam fu muy julee fajar la ibnu maljam fa jaas ñu bett ko dal koy jam seetal Xuseynu yu ma asuraa lañ ko rey ci a Karbala noonu yaa ko yor baba gannaaw bu dee naa làmmiñ wa naa sa yaxlamu lasiina seetal Xuseynu seetal Xasan noonu mi dañ koo tooke mu daal faatu soxna saa sooke ñoo tooke Saadix te lu toog a baaxir ñoo toog kër Seydil Abidina Taayir su sub Rasuulullaahi Muusal Kaasim gënee fu ko am xar ci doomi Haasim taal nañu nii gëm ci kawam ca Baxdaad tëj nañ ko ay at baat ba mel ni ak raat Yankooba doomi waajuru na Daawuda yanqooba kami waajurona daawuda ko karim asal ko karim natu asal mooy waada fukki at juróom la am ci aw mburu lay reere te mus la génn seetal anas baayib imaamu maliki doomama xal ngir mi tax nuy saaliki tëj koy at ci kasoom la faatoo mbër ma ko julee wootu mbër ma ko wuutu foofa faatu xanaa xamoo xalaat suuf mbër duur nañ ko waxtu takkusaan junni yar mu taawe di gaaña far ko rendi sann ca daj la amoon nañ jinni xanaa xamoo jaxfar doomi yaxya te nañ ko far ko rendi jéng yaxya na muntasir def mu tawakkil baayam mu siifu koo gis rey ko doon ni gaayam kenn musu la gis na nga rey abdul xaayiri ak muntaxa ak musawir ak naasiri dañ leen a tër daj font mboolem cër yaa togg beteex suli ca mboo sotti ca mboolem gëj yaa dañ leen a tër daj font mboolem cër yaa togg beteex sotti ca mboolem gëj yaa Abbas borom daar jawoon ca Misra tëj nañ koy at far ku rey fa Misra far ku rey ca Misra borom jumaa ja woon fa kaani toj nan ko far ko ren di toj bunyaan xanaa xamoo Mansoor Sayfu diina xanaa xamoo Mansoor Mansoor Mansoor diina xanaa xamoo Mansoor Sayfu diina moom la ñu génn woon mu dem ba siin seetal ma kañ dàq ci réew sori ya mu jóge misray daw mu laskandriya ñu jot ko ñu jot ko far ko jàpp tëj ko faaba te waa waxtu moo defoon xalifa nem xulafaaw yi doonee rasuulu ñoom la ñu def nii kenn wa warta wool ndem xulafaaw yi doonee rasuulu ñoom la ñu def nii kenn warta wool soo xale meex chaasil yokk choraani kalaame nañ leen natu leen choraani soo xalamee waram yi ngeen ci ngir yaa du gis ku daj lan dajoon ca buur yaa ahmadu hanbal maraboon ci ngir yaa ñeneen ci jëng lañ defoon ca yeel yaa daa nañ ko caw téeméer yar suba ngoon te mos la wedd yàlla mos la moy yoon wa yaqtimul qur'aana kulla yawmi maa xiyaami mu diima saw mi ci lii la sax mu muxtasim xëy faatu buur ba ko tëj lu woon te xol mu yaatu bu muxtasim faatoo ñu mu yeesalaat kasoom ba dóor ya far sax soo xale meex kasoom Abu Xanifa man ma Abu Jafar defeem xalifa kon doo xalaatal Sidi al Muxtaar téeméer yar la daa añee kareere téeméer rakka yuñ ubbe alhamdu la daa defum naa fi la doora werna bu yoxtimul qur'aana kul yawmi maa xiyaami mu diima sawmi ci lii la sax ba faatu wóor na ndax daat jumaati fi jumaatin la war ci ak jaat soo xalamee fitnay imaamu maaliki ngir waxyaaroona rasiidul maaliki kon nga ni ndax Malick amul karaama te xam day ragal ëllëg malaama seetal borom seetal mbirum Amina ak Maamuna seetal mbirum Amina ak Maamuna te xam ni ñoo dogoo geñok Haroona te xam ni ñoo dogoo geñok Haroona da koo yalam ba xam ni gaay yi dee fa mu ray ko dal di xëy dafa xalifa su ngeen gëmul lii yéen muriti gaawaan su ngeen gëmul lii yéen muriti gaawaan su ngeen gëmul lii yéen yéen muriti gaawaan su ngeen gëmul lii yéen muriti gaawaan su ngeen gëmul lii yéen yéen muriti gaawaan ngeen dal di dem yéen daal di yor téere xayatul xayawaan te xam ne tey budul ko nag farañse mbir ya amoon dana amaate saas la ñu defoon gaay yi gëmoo yeneen mbaaw misaal na war naa am ci gaay yi Bàmba waaye farañse noon na guuru Sénégal ñii ñu fetal ñii dugal ci Sénégal ñi génn gàddaay far di dem faatu ñi joxe seeni ngànnaani ndax nu yaatu foog ñu saamu di ca réewi yóbbu gabam boole kook baraama siise taala pour ba kay mbulañse def ko biir la xawla ma farañse la xawla ma farañse ñoo génn lam de julbe réewum ñooro rey ma doom da jàll fuuta ñoo dellu rey almaami abdul buukar ahmadu seyxu jàpp abdul xaadir jàpp rakam almaami ali buukar yóbbu gabam doom jëñu woon ko puutar ñoo génne albureeki sàmm seelaaw fukraasi yéen penku ne leen ma waawaaw wuuri kajoor yi fi ne woon ca baawan ñoo leen toxal xëy taxawal ci waawar raatile doomi buur ya woon fa saalum raatale siin ganaar taxaw ni maal sëriñ coon diggante waalo ak njaambur jàpp leen kenn defatul ab njaambur ay na sëriñ makka baraama xaadi ñoo ko ni tas te moo rawoon kuy xaadi sotu mataar numbe mi sanc kokki mi sancoon kokki ahmadu aminatu ñoo ko sank nun jéemu du àdduna ak bonam ga xam ni waaju aya wol ayam nga duniyaa di tiisu ngaay jëm ci yàlla tey àjjana yéefar yi weddi yàlla ku weddi seetal ahmadul mbakiyu bam laata doon ahmadul mbakiyu noon yaa ko génne néegi mbàkke baari sama sëriñ noon yaa ko génne néegi mbàkke baari Seex Bamba bàyyi sëriñ Saaliwu noon yaa ko génne néegi mbàkke baari noonu lee ko jënd néegi Mbàkke Baari Seex Bamba Seex Bamba noonu lee ko jënd néegi Mbàkke Baari sandar mu yaa ngi naan fa ndar nga jaay mu jaar ndar ndar ba gëmal ne daar ñu koy jëlax mu way ndakaaru soo xalamee ñaari guddi ndakaaru ma dégg wax jëmbër ma wax nga waaru sakartu zaali kalma biita wa zaali amira wa subuuta طارت إلى الجهاد بالأرماح نفسي ولكن زب عن الماء نفسي ولكن زب عن الماء نفسي, نفسي ولكن زب عن الماء نفسي ولكن زب عن الماء nafsi wala kër zabanil maay noon yaa ko génne foofa yóbbu galwa mu sax juróom yaari atam ci galwa ci balwa dem na Konaakiri ba dem maa yambaax te mos la yox yoxi sama sëriñ ba del si Tuuba dem na Konaakiri Seex Bamba dem na Konaakiri ba dem maa yambaax sama sëriñ mos la yox yoxi bàyyi sëriñ mos la yox yoxi ba del si Touba Cheikh Bamba mos la yox yoxi ba del si Touba mos la yox yoxi sama sëriñ mos la yox yoxi ba del si Touba mos la yox yoxi ba del si Touba ka soog fetal mbaa karawaas mbaa jaasi ka soog fetal mbaa karawaas mbaa jaasi di dee sëriñ Touba di wéy ci naas ka soog fetal mbaa karawaas daas mu teel Serigne Touba sama Serigne di wéy ci naas mu ñëw ñu fab carte ya boole mbaxaan ci kuy tuuma lépp dafay caaxaan ngal doole amba du moroomam kacoor ngaa xi tukkal dee fu ko pergal ma coor ngal doole ngal doole ngal doole ngal doole ngal doole ngal doole ngal doole man moromam Kajoor ngaax dugal kenn du ko pargal Mbajoor ngaax dugal defu ko pargal Mbajoor ngaax dugal defu ko pargal Mbajoor yan ba nu yonool xut bu yàgg lam daal ya ci atum nun ko maa ko faw raw gaaya dëndin di wëy te tuutul balaaya suuf la waan la am ci sëriñ si naa xis kaamil mbër yëpp suq lañu bàmbaay kaabal man sàkk fi zalika falu jëribu amanu jëribu ba abi taqarabi jaaraama maam seexanta yaa gëm bàmbaa yaa taaru yaa tabe te gëm yeneen baa maam seexanta jaaraama jaaraama jaaraama jaaraama أنساكم بندا يا طار يا طب تق من با شيخ سيدي المختار يا طار يا طب تق من با xandeer akub dërëm akub dinaar ñoo yam fa daam tudd may day naaru bamba kumal mooy dëy rasoolu moo ñeme mooy kenn ku wecc mbooloo وخير خرج الكالف وربع الف خيمة قوف محمد فرد يفاخ تسبيح وفاخ جمال ولن يا مخلف سرين بي tam soo ko xiyaas mu yiis ko te moom place boo ko wutal mu fees ko sëriñ bi aslëf ciw desam la ñu del seex anta moo tax noone far ko randal ci sëriñ bi aslëf ciw desam la ñu del seex moo tax noone far ko randal ku doon saayir war a baatin say baraam na taxaw am baatin ku doon saayir war a baatin say baraaw na taxaw am baatin ku rëbb day xiif ak a mar sax mbaa mu nangu mbaa du fetal lu taaraamu jaaraama maam si xën sa yaa gëm Bamba yaa taaru yaa dabe te gëm in baa jaaraama jaaraama jaaraama jaaraama jaaraama maam si xën sa yaa gëm Bamba yaa taaru yaa teme te gëmënen ba yaa jëkk fab sa ci seenu askan yaa jëkk fab sa ci seenu askan jibul Sëriñ Tuuba nuroowula kenn Cheikh Sidi El Muxtaar nuroowula kenn gëm yàlla gëmënen ba am sëriñ ba moo tax gëm dogal ya atan yan ba gëmug ndogal te aw ndigal fug raasi ni la sëriñ bi def baraw farañse seen bu bi dis na mboolem Sénégal Cheikh Sidi El seen bu bi dis na mboolem Sénégal maam Cheikh Anta borom seen bu bi dis na mboolem Sénégal te tawatoon kalaana waaw يحمى رجال فرجل رجل من يصبر في بلية ونعم حجتها صبرا جميلا بك يا وكيل يا وال رب راس صبرا جميلا بك يا وكيل مام شيخ صبرا قاوان يا وكيل يا وال رب راس صبرا جميلا بك يا وكيل يا الله رب الأرسمال صبرا جميلا بك يا وكيل يا الله رب الأرسمال نتوري بولك بري جلوله ànd ak guddu tànk lëmbal di yaa fi demoon ko naak rek toog nga fekk Sëriñ Tuuba ne leen ma gonga Seex Sidiyal Muxtaar maam Seex Anta borom yaa fi demoon Conakry di Congo fekk Sëriñ Tuuba nee leen Congo yaa bari ay ndam yor bari way ndam te bari jaloore yaa bari ay ndam te bari jaloore yaa dem borom bu géej rambu tuuri si naa yaa dem borom bu géej rambu tuuri si rambu tuuri si xas lii ci xasida yi rek ci xasida yi